liñ fi jot a wax léegi di tàmbali di dellu siwaat ci gërëm ji leader yi nga xam ni ñoo fi ñëw toog di ay kilifa parti yu mag nga xam ni kenn ku nekk li mu wax ci man mën naa wax mille ci moom lu nekk ci man mille ñu ngi ci ñoom ay leader d'une très grande valeur ñoo toog ci biir salle amul fenn fooy tibbee ku leen sut ku leen ëpp ci dayoo ku leen ëpp ci bëgg senegal ku leen ëpp ci jóg pour liggéeyal Sénégal Merci Madame Aïdembouk d'avoir fait le déplacement. Merci le président Abdou Karim Fall d'avoir fait le déplacement. Merci au président Thierno Bokoum. ku nekk dina jël wax ni mu ko xalaatee te li ma leen mën a wax rek mooy ku nekk ci ñoom maa ngi koy fréquenter mais ay kilifa yu mag la. Merci au président Malick Gakou. qui est un frère, il l'a dit tout à l'heure, qui est un grand frère, on a des relations très particulières. Depuis pratiquement six ans, on est ensemble dans l'opposition. Il a dirigé pas mal de fronts ci opposition bi ñëpp nekk ci ku nekk gis lam ci def tey mu ñëw ci cëru frère ñëw ci cëru xarit mais ñëw également waxal Yewwi Askan Wi nga xamal leader yi ñëwul ak ñii xalaatoon ñëw yëpp que ñii fi nekk mat nañu lépp te amul lenn luñ fi mënoon def lu beesu liñ fi def kon di la gërëm ci sa ñëw bi nga ñëw fii. en réalité moom laa waxoon sax ni ko yaay coupé ruban au siège bi <laughs> mais malheureusement comité d'organisation non indiwuñu ruban xam nga loolu erreur la. Non, tout ça pour dire quand même que c'est un homme d'une très grande valeur et je le remercie également de sa présence. Di remercier wax naa ko léegi tous les autres leaders des autres coalitions de l'opposition ñoom ñëpp lu ñu mën def nañ pour mu doon benn mais yàlla lii la indi tey mais li mu wér mooy muy la coalition gëm sa bopp di la coalition wàllu Sénégal di ñi nga xam ni aussi ils ont l'option de ne pas s'engager dans les locales ñoom ñëpp c'est de très grands patriotes et Thierno Bocoum est là donc ñu leen di féliciter ci seen taxawaay ci Sénégal yàlla na yàlla def taxawaay yooyu ak ku nekk ni nga ko gisee ak ku nekk ni nga ko jàppee mu doon les premier pas pour le départ du président Macky parce que réew mi sonn na ci secteur yoo mën a jël muy santé du éducation di agriculture di industrie di emploi foo mën a jël réew mi sonn na fii ki fi sonn mooy le président Macky Sall wala ku sant Faye walla nga sant Sall te bokk ak moom parce que sant Faye ak sant Sall Modou Faye bokk ci bi nga xam ni mi ngi fële ca Mbadakhoune mais il faut nga bokk ak moom te loolu kenn du ko yore réew kon jot na ñu changer réew mi jot na ñu bàyyi fooy jël administration bi yëpp yóbbu leen Dubaï pour présenter ay projets yi nga xam ni ay européens ñoo ko def présenter woo ay projets yu sénégalais yi di def non seulement suñu xaalis nga jël ko jox ko étranger yi mais tu utilises encore non moyens pour aller faire la promotion ci ay yi nga xam ni mooy liggéeyu étranger loolu nan leen ko mën tuddee c'est un manque de patriotisme un manque de vision un manque également de considération aux Sénégalais quoi qu'on puisse dire impôts yi sunu maam yi ñoo koy cotisé ñu jël jox ko ko kon bu demee bay promouvoir na promouvoir li suñu maam yi def fexe ba également li nga xam ni moom la ñu nekk guddi ak bëccëg loolu gën a yokku al avion bi dugal ci administration bi dem ba Dubaï ñii di fecc ñii di caaxaan ñii di loué ay hôtel moom mu ñëw di présenter ay projet yi nga xam ni defuñu ko je pense que loolu Sénégal ne mérite pas la moo tax booloo def jéego jot pour que souffrance yi ñu mën ko apprécier te je pense que le 23 janvier 2022 moom ci boppam la présidente wax na ko léegi dina tàmbali defar ay balisam na defar balisam na dem bàyyi réew mi ci jàmm na génne ci xelam yi ñu koy digal ku ko ci dugal ci boppam rek yaa ngi koy dugal ci musiba te bu musiba ñëwee ñooñu ko ciy dugal ñooy njëkk daw ñooñu ñooy njëkk perdre réseau wax ñu sax bi fi événement mars yi amee yàlla bu mu fi amaat am na ay ministres yu commencé woon perdre réseau kenn mënut leen woon jot kon dox ci jàmm moo gën def lii indi jàmm moo gën te lii indi jàmm mooy def nga ñaari mandat doy na sëkk 12 kon ñoo ngi leen di gërëm encore une fois la presse qui nga xam ni yéen ay jàmbaar ngeen ci mbir mi ñooy bokkandoo lacrymogène bi bokkandoo naaj yi ta taxul benn yoon ngeen xaddi tout temps yéen a ngi nekk sunu wet des fois ñenn ñi xaw ragal bu nu fàttee seen dàll yéen a koy for yóbbul leen ko kon mën na ñëw ba fii te dul leen gërëm dul leen sant keroog Malick nee na ma yéen a ko indil dàllam non moom nag du daw non non du daw Moussa le dis parce que xam naa ni moom guerrier la bi ñu gars yi dàqee place de l'obélisque man moom ñoo yeggandoo je pense euh, à l'arrivée stade Demba Diop mais place de l'Obélisque ak Demba Diop soriantoo na lool vraiment pour dire que on en famille ici on en famille ay mag ay rakk ay xale yéenante jàmm ku nekk di dox ci jàmm te vraiment li ngeen def réy na ci man kon di bàyyi le MC pour cinq minutes seulement mu lire liste secrétaire national bi bu ko defee ñu mën libérer suñuy invité ak la presse di xamal le président que bis naka tey jàpp leen ni siège bi du siège yu PRP rek mais siège yu Yewwi Askan Wi la lépp loo leen fi xalaat comme activité seen siège la ubbi leen ngeen dugg te commission électorale bi may présider nga xam ni bureau yëpp ay bureau lañu tout la là tous les équipements yi nga xam ni soxla nañ ko mi ngi fi lu fi ñàkk lu ñu soxla nan ko wax bu ko defee également ñu taxaw ci mais seen siège kon daal loolu laa bëggoon wax ñu jël kàddu yi di ko delloo MC très rapidement mu ngi listu SN bi di leen gërëm di leen sant merci